Réfé matin 7h42 sunu gan Boubacar Seye Salam maaleykum salaam Babacar. yaa jiite euh, yaa ko sos jiite ko ONG bi wax Horizon Sans Frontières yittewoo wàllu tukki migration euh, li tax ñu woo la euh, xamees na ko ba noppi mooy semaine bi nu génn am na juróomi Sénégal yu suux. ca boori Maroc teg cay fan mhm. yeneen fukk ak juróom ñàkk seen bakkan euh, ca géeju Mauritanie ñoom ñëpp bëggoon na wutali Europe euh, muy loo xam ni euh, am na ñu mu jaaxal ndax ba léegi gone yi xëy na sax am na ñu bari ñuy jël gaal yi di yegg Europe te xamee su ko foogoon nañ ni jeex na walla wàññeeku na waaye mel na ni safaanoo lañ gis.

fu mel Sénégal c'est la pauvreté loolu moo fi jógeegul ba léegi parce que pour juguler ce phénomène là euh, attaquez nous la cause principale moo tax ba léegi jógeegu fi j'en profite pour. la euh, cause principale pour yow lan la dëggantaan. Ben, le bu mel Sénégal c'est c'est c'est c'est des questions liées à la mauvaise gouvernance le chômage endémique chronique structurel des jeunes tay loolu moy cause principale bi les disparités. mom koy dëkk bi hein? les inégalités ñi japp ci dara sax seen affaire lu xuma la ak ñi jàppul ci dara. voilà mu ngi noonu nag. Hmm. donc euh, loolu yëpp dafa nek tay facteur de propension à l'immigration clandestine donc li am tay mën wax ni c'est l'échec euh, des États dans la prise en charge de cette jeunesse bi nga xam richesse là, parce que suñu démé ba. Euh, loolu moy explication bi ñi gën dégg échec des gouvernements échec des gouvernements euh, mais gouvernement Sénégal boko xolé mhm. euh chaque jour mu wone ñu ni mi ngi pexé euh di créer ay DER ay ANPEJ etc. Euh loola lutax doxul ba gone yi mëna tok wala ni mu waroon lawé ci réew mi ci dimbali gone yi wu ko. kon nak dañu xolat ñooñu wala ñu taxaw euh, devant le peuple sénégalais wax ñu ñoom euh, seen liguey bénéficier dans le cadre euh, de cette prise en charge de l'emploi des jeunes pour réduire les risques de ce phénomène à des proportions tolérables parce que je rappeler ni gis nga européenne daf ma jox ay limu ci Sénégal ci dougal ci lutte contre l'immigration clandestine, l'extrême pauvreté. donc plus de 180 millions d'euros donc ce xayma en francs CFA euh, cest milliards 900 millions de francs CFA donc à travers des programmes une documents yi mu man euh, mettre à la disposition parce que suñ ko c'est-à-dire que euh, dans le cadre de l'immigration clandestine mmh. lutte contre la pauvreté chômage des jeunes jéem nañu jéem nañu mais finalement il y' a pas de résultat parce que tey la wàllu gën a donc ñooñu nga xamni nak ñom lañu jox ay programme je crois kon war nañu mëna taxaw wax programme bobu ñan ñoo ci bénéficier parce que tey la wàllu gën a aay xaalis boobu fu mu dugg je crois que le peuple sénégalais a besoin d' être édifié moo tax mais tamit xalé yi dañuy jël da ngay gis ñu yor ay ay millions. 2 3 4 millions xalé yor ko bu noppi bëgg koo def ci gal euh, ci paasu gaal pour dem Europe loolu itam est-ce que amul lu ci askan wi ci absolument les responsabilités sont partagées parce que y a un problème parce que tey xam nga le doute dafa dafa dafa dafa gagner le doute a affecté notre euh, environnement psycho psychosocial euh, notre environnement euh, socioculturel ba nga xam ni nit ñi gëmatuñ ne mën nañoo tekki fii donc solution bi mooy dem parce que ki yore xaalis war a mën a liggéey fii gëmatul ne xaalis boobu war na mën a liggéey fii alors li mu gëm moom mooy braver la mer fay braver la mer pour dem taxaw ci feu te moo ne Europe googu ñu jëm tamit foofu tam yëf yi doxul di. Hmm. dara doxul Europe hmm. moo ëpp problème fii moo tax dañuy wax ni ñun il faudrait que mu am tey une relecture des perspectives parce que au niveau du dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ne migration pathologie la fi hein donc euh, ñëpp a bëgg a tukki euh, théorie yëpp dafa vérifié wu je crois que il faut que mu am une révolution socioculturelle épistémologique pour ñu gëm suñu bopp. Hmm. xam ni doomu Sénégal ñoo mën a liggéey Sénégal mais il faut que il faut que un travail hein, de force. xam nga il y a une grande responsabilité qui incombe l'état du Sénégal mais aussi les familles parce que si jëlee théorie bu mel ni la NEM la nouvelle économie des migrations internationales migration que tout de même euh, euh, un projet un projet euh, individuel famille bi di ngay gis ñuy cotiser pour nit dem mm-hmm. donc loolu c'est tey tax na ni war nañu toogaat waxtaan xooraat nos pesanteurs socio-économiques parce que Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni loo dégg tekki dama bëgg a tekki mais li tax nga xalaat ni yow Europe rek nga mën a tekke il faut que ñu xoolaat loolu il faut que ñu xoolaat le système éducatif. Mhm. il faut que ñu il faut moo am beneen contrat social. Mhm. fi mu toll nii ñu ngi ci fan yu mujj ci euh, at mi. 2019. Mhm. Euh, ci wàllum xayma. ñaata nit euh, ngeen gis ne ñoom ñoo bëggoon dem ñàkk ci seen bakkan ak bu ko méngalee ak daaw 2018 nu gis nga dañu wax en moyenne. en moyenne nee nañu. 11 euh, personnes meurent en Méditerranée. 11 personnes meurent en Méditerranée. Ni dans le cadre de le projet migratoire, nous ñu wax ni statistique personnes qui ban dire en moyenne. en moyenne non depuis depuis depuis le début de l'année. Nous avons 2889 ñu wax ni morts. Mhm. parce que xam nga nit ñi bala ñu ci wax rek gal mais gal ñi ñu ba souvent ay dina am ay gaal yu suux mu tasanteeg ay événement yoo xam ni kenn ci wax daf koy nëbb ñaata nit ñi si ñi si ñi si ëpp xoolal ñi dugg Europe euh, ci ci année bi. Hmm. ñu ngi ko xayma ci 43 cent ñu ci bëri waaye du Afrique rek loola du Afrique rek. noonu fii ci fii ci Méditerra Méditerranée bi. Mhm. waaw Méditerranée la ñuy wax rek. ñu dugg géej gi dox diggante voilà voilà. voilà parce que ñun euh, euh, ñi dëgg ñu dugg Méditerranée damay rappeler Méditerranée dafa am ñetti ñetti zone dafa am occidental dafa am oriental dafa am euh, central boo xoolee tey tension yi am géopolitique avec Erdogan mhm. nit ñi bëri ñu ngi ñu ngi jéem a dévier vers la Méditerranée orientale moom mooy l'axe bi dugg Grèce que nu mu Istanbul Grèce donc. Euh, Diap Malte. Diap Malte, voilà. Euh, au niveau de, euh, de l'Espagne, c'est la Méditerranée occidentale. ñi fa dugg ñu ko xayma ci vingt trois mille euh, cent quatre vingt treize parce que Pedro Sanchez bi coow li amee dafa est ce que vous comprenez donc tey euh, mbir mi noonu la demee Afrique gi yëpp a ngi màbb doomu Afrique a ngi dem foog ni solution bi euh, solution bi Europe la ñu ngi dé par l'absence de perspective. Sénégal mom ñi dé ñep ñep ñep ci at mi ñaat nga ko xey xayma. ñaata ngeen ko xey non non lolu pour pour xey mako da fay metti xam nga li tax doomu sénégalais euh buy tukki. Euh, Échange de Waaw parce que euh, le Sénégal n'est pas n'est pas pris en charge par le par la convention de Genève de 1951 donc ce qui fait que doomu sénégalais yi bii dem ñoom dañuy fexe ba ni identifier seen bopp ci dëkk yi am guerre pour mën bénéficier du droit d'asile moo tax ma lay wax ni ñi ci ëpp ñuy dee ay sénégalais lañ. boo mhm. demee Libye boo xoolee. gis nga mais gaal gi du Gambie des fois, mhm. euh, defoon euh, téeméer ak euh, lu topp ci ci ay doomi aadama. Mhm. seetlu gi moi. ay jigéen yu ci loru da caa da caa bëri ay gambiennes. Euh, waaye jigéenu Sénégal moom. ñoom ñemewuñu noonu gaal yi ñemewu noonu géej gi loolu moom euh, mënees na koo seetlu. Mm-hmm. mais am na ñu nekk ñu ngi may woo Maroc di ma wax ñoo xam ni pratiquement ñu ngi Maroc ay sénégalais lañu pour fexe nu ñu demee xam nga tey euh, dafa am ce qu'on appelle une féminisation des flux migratoires tey les femmes occupent plus de 48 virgule cent des migrations internes amul benn protection ñoom la ñuy violer ñoom la ñuy toroxal ñoom lay def lépp donc loolu yëpp tey dafa war a nekkaat l'objet d'un débat de fond dans un pays comme le Sénégal Waxnako théorie dafa il faudrait euh, ñu il faut que l'État ait une en ce qui concerne euh, la répartition euh, des richesses de ce pays-là il faut que nous ayons une matuwaay efficace en ce qui concerne la problématique de l'emploi des jeunes parce que wax ji yëpp dëkk bu Sénégal loolu mais tant que xolatuñu tëralin yoy nak parce que perspective na bu Sénégal normalement chômage waru fi am parce que am nañu mais justement est-ce que justement Boubacar sey bu mhm. wi ci gouvernement bi am. ci mhm. taxawu gone yi ñu japp ci dara. Euh, gone yi Sénégal euh, da ngay gis ay métier yu am fii. Mhm. yuy joxe xaalis. Mhm. jaay combat banana doo gis benn doomi Sénégal di ko def ñeneen ñoo jógee fii di ko def di ci am koom di delloo seen dëkk. est-ce que amul problème tamit euh, tiitaru gu ne ci ci sunu askan. Euh, foog sa bopp foo yeggut xeeb ay liggéey te boo demee Europe pourtant liggéey yu gën a tar ngay def foofu. effectivement c'est ce qu'il faut briser loolu moo tax ma wax sànq de relecture de la perspective xam nga ñun dañu am ay pesanteurs socio-économiques. Euh, ba pare aussi dañu nekk ci dëkk boo xam ni euh, damay wax ni am-am dañ ko teg au-delà de l'être qui est l'incarnation des valeurs intrinsèques lu mu am ngay dégg lu mu ba nga donc nit ñi dañu je crois que, euh, euh, euh, euh, une révolution épistémologique et socioculturelle, c'est ça. Il faudrait un nouveau contrat social. Il faudrait que nous tabachatent les mentalités, surtout les plus vulnérables, parce que nous affectés. Il y a un vide, il y a, un doute qui est là. Mettre les gens dans une dynamique de travail. Parce que y avons une relation linéaire entre am-am et liguey. C'est un processus. Monotop am, auto dernier cri téléphone dernier cri donc ce qui indi nga xamni bon aussi inégalité fi aussi parce que aussi il faut rappeler que 90% des des des richesses de ce pays là ni c'est moins de 10%, pour cent ñi sonn donc fi mu y il faudrait tabac à lépp les mentalités ak il faut une reconstruction totale dans ce pays là pour que nit ñi xamni Sénégal ay doomum ñoko mëna tabax il faut que nit ñi xamni aussi yalla moy may il faut que nit ñi xamni aussi euh, euh, euh, y y a cette relation linéaire là dont je parlais tout à l'heure qu'elle mënu ko on ne peut pas sauter les étapes lu jot dafay yomb lu wara am dana am lu warul am ñu xamni yalla am donc loolu yeb il faut il faut que nit ñi delloo mais mais bo jëlee secteur bi melni walu nap gi mhm. léegi doomu kat yi ñoy jël gaal yi napé mbar mbaa lu yenen gaal di tukki te moné napul nappul dox le Sénégal ñom nak néñu c'est parce que état bi mo jël ay licence jox ko ay bateau yu mag yu jóge bitum rew di jël jën yépp est-ce que loolu itam euh, du scandale ci ci réew mi bu fekkente ni eh, ñii napp daan ci jëriñu gisatuñ ci seen seen bopp loolu loolu nappkat yi gisatuñ ci seen bopp parce que la la zone économique exclusive a été bradée donc tey la pêche industrielle ça dafay ça tue la pêche artisanale donc nappkat yi lu ñuy def amatuñ liggéey mënatuñu dund seen napp donc ñoom ñëpp ils sont candidats à l'immigration moo tax euh, euh, je crois que il faut que ñu tegaat yeneen tëralin il faut que euh, Sénégal privilégier ay doomam parce que am na yoo xam ni soo européens yi da nga fiy indi ay coow rek loolu moo dal Afrique tout simplement je crois que tey on gisoo on parle de croissance mais une croissance qui ne qui ne diminue pas la pauvreté kooku du croissance une croissance boo xam ni dafay teg une répartition boo xam ni jaarul yoon euh, voilà, qui favorise au profil, une croissance au profil des multinationales et des élites politiques loolu du croissance croissance dafa war a ba kii di jaay ci marché bi donc loolu yëpp tey tax ñu war a xoolaat dans une démarche participative. mais est-ce que wax tamit euh, mbir wax rek dina ko saafara euh, parce que gis nañ ne chaque fois ñu mel yéen yéen a sensibiliser di wax mais teewul ndaw ñi tey la wàllu gën a ay lañ gën bëgg a dem am na ñoo xam dañuy dem ñu indi leen ñu ne tey ji bu ma gisaatoon dem. dañuy euh, problème bi c'est plus profond que ça. mais c'est plus profond que ça c'est-à-dire que ñun aussi alerte la ñu mën wax seen plateau bi ñaata lañ ko fi mais dafa un travail de fond euh, euh, euh, qu'il faut faire en amont et en aval l'État joue pour Tek ay aussi dans un tout autre régime. je l'ai parlé une relecture des perspectives avec des outils d'aide à la prise de décision parce que vide qui nous là. Il y a un vide qui est là Nous nous, ne donc il faut que nous xoolaat loolu parce que tey il faut que mu am un sentiment d'orgueil au niveau des Africains parce que euh, imaginez bateau bateau yi di vadrouiller en mer fu nous jub nous ne leen je crois que loolu tey waroon na créer un sentiment d'orgueil ba nga nous ñun ñu parce que euh, avenir moi jeunesse donc avenir mooy Afrique parce que Afrique moo moo am jeunesse mais suñu démé ba cette jeunesse là dañ leen sagane ba ñom gëmatuñ suñ seen bopp donc il faut que ñu toga tabaxat mentalité yi. Mm-hmm. il faut que ñu délo wat suñu bop ci Yalla lool mo indi réewu Europe yi tamit euh, am nañ wàll ci yef yi seen frontière ñi gëna gën a euh, képp diko ko tëj. di africains yi loolu itam euh, est-ce que Afrique dal du ci am pexe dal dañuy tok rek bàyyi non européens yi di gëna téngal sen anam yi duggin sen réew. waaw xam nga tay dafa am ce qu'on appelle une mondialisation des flux migratoires pratiquement toutes les régions du monde sont soit concernées par le départ euh, le transit ou l'accueil donc euh, loolu moo tax ñun ñi ne tey euh, dafa nécessiter un mode de gestion euh, bu wute ak bi amoon nga xam exclusivement réservé aux pays d'accueil Afrique nak dafa ni pat pataral parce que l'immigration est une soupape de sûreté gis nga li am yeb état yi dañ ci profité pour laaj xaalis ne dañuy té motax bi du il faut auditer bobu nañ la maintenant l'Europe ne se remet pas en cause dans la gestion de ce de ce truc parce que Europe tay dafa am problème avec la la la chute du mur de Berlin il y a une disparition des idéologies donc le mot indi euh, place aux questions identitaires euh, aux questions euh, au repli d'espace identitaire populisme on a construit l'immigration comme le contraire de l'identité L'immigration, immigration une marchandise électorale pour gagner des élections et c'est dans toute l'Europe Bon, la social démocratie disparaît disparaît de pratiquement Europe la droite droite bi nga xamni ñoo extrême droite les extrêmes euh, les partis populistes donc nous, ñoo fa ñu jël la migration comme le contraire de l'identité Nous ko la migration comme un remplacement parce que ni de le pour jël alors que migration c'est tout simplement un complément qui entraîne une dilatation de l'économie et de la société migration facteur équilibre social économique ñom aujourd'hui il faut lutter contre le paradoxe libéral Moi, tout simplement euh, euh, euh, la migration la mobilité des gens réduit pour des questions de sécurité parce que lolu que Europe xam nañ ko on en profite pour attirer l'attention de certains pays africains qui l'Europe dans l'externalisation de ces flux-là Turquie dafon bon Maroc mu parce que Maroc le Maroc est un grand pays warul d'accord sax le gendarme de de de de donc lool yeb tay la euh, renforcer les processus d'intégration euh, culturelle et structurelle parce que Europe nous, nous xam migrants L'Allemagne l'a compris et il y avait même un rapport des Nations Unies, Bugonen en 2000, pour l'Europe combler son ratio actif-inactif. Donc il lui faudra plus de 161 millions de migrants d'ici 2050. Mm mm-hmm.